oto bi mu nekk moom maître moo fa nekk. bon waaw. mi ngi nii Acabou, acabou. É, tá? Tá bom. yaa ngi ko war a taal ay e pneu fii ci la ci kii bi VDN bi. non egg na. non Ousmane Sonko oto bip la dugg quoi. jaaraat TikTok. Amadou. s'il vous plaît lii dafa métti. barki yàlla dafa métti. gars yi lii nii ñu bëgg a def teguñu ko fenn mel ni ñu duñu ay citoyen GIGN BIP gendarmerie ak ku mu mën a dool suñu xaalis lañ leen di fayee ay citoyen ñu nekk ci réew mi jugee tur bi. man dama dama noyé. saa da ngay wër rond-point ni nga ni rond-point doo jaar ay eh, wala wala. mais Fall ngay gisee naka mu. naaj see. yéen ay jamono bi nga xamante ni xale yi dañoo taal kono BDN bi. voilà daal di leen seppi ne leen ñu avancé léegi nag mën nañu wàcce Ousmane Sonko dugal ko seen i oto di ko yóbbu ci noonu nag la ñuy continuer